jàngat làmb tàmbali na Père Birahim sama waa ji maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér namm naa ko loolu ndax namm naa wax loolu euh, saison wu làmb un an ngi nii làmb amul un an et quelque euh, bientôt incha allah rabbi le 28 mars bi suñu papa sëñ Modou Niang dina ubbi euh, saison bi ci arène nationale làmb ji actuellement noo ko gisee est làmb parce que ñu bari ñu ngi naan làmb moom du am. dañ koy wax nii rek mais arène nationale moom fii dumawuñu ndëm ndënd duñ ko gëm nii làmb dina am nan nga gisee saison bi làmb dina am wala du am wala noo gisee. waaw làmb ji comme ni nga ko am te mooy dàq saison yi. jërëjëf sëñ bi. saison corona mooy dàq saison yi saison 2021 bii mooy dàq saison yi te li nga gis ay jël yu doy waar. di nga gis ay jël yu dee waar di nga gis ay làmb yu neex sax yu neex a neex a neex bu soob suñu borom. taat bi yanu ba ci ah, mu daanu ban moo ci ëpp. dóor mu daan sax mën na see bari dóor mu daan mën na see bari waaye saison bu neex lay doon la xam naa ne saison bii lañ jëm saison bu neex a neex lay doon di ñaan rek yàlla def ñu dugg si ak jàmm génn si alhamdulilah rabbi alamin combat taxaw yëpp yëpp yëpp yëpp ñu bëri ko si bisimilah maanaam génn si alhamdulilah rabbi mais ay mag lay doon incha allah rabbi combat bi gën mag ñu war ko départ mu ngi dox ci diggante Lac de ak ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène suñu papa Gaston Mbengue moo ko tëgg le 4 avril la arène nationale combat boobu noo ko gisee. waaw Lac de ak Eumeu Sène ay mbër yu mag leen ay mbër tamit yu miin bis leen ba pare ñuy bëri si bis bu mag muy 4 avril du nekk bis bu yomb si Lac de Guiers du nekk bis bu yomb si Eumeu Sène mais xam la ne ku si ëpp lu muy génnee si lu weex moom làmb ci ëpp li muy génnee ci lu weex moom moom làmb ji. ba ci solinam ku si ëpp lu ngay génnee si lu weex ak sa solin jaamu làmb ji saison 2021 banaa la drapeau bi banaa la saison 2021 laa wax si mbër yëpp drapeau bi banaa la te seetlu li ma lay wax. si ëpp li ngay demee lu weex yaay moom laa mujj de. ñoom ñaar kan moo gën a jekk actuellement ni ci làmb ji. waaw moo li ma la waxoon sànq mu ne la Sénégal wax dafa metti ngay dem ba ñu bari ba dootu ñemee wax si yéen bis yi. da ragal loolu léegi. waaw ah, man taalibe Cheikh la. taalibe du du ragal du jaax. Cheikh rek si dolli parcelle laa juddoo. fa laa màggee fa laa yoroo. ma yombul. xoxootal ma tamit yombul. ndax dañu comme wéeruwaay. neexa bu max dama am ba pare miñ yoon bi xam fi ma jëm amul métti ku jekk ñoom ñaar instant bi de le bu nekkoon suba suba suba suba ma seen daan ko lu jafe nag laa def lu <laughs> waaw lu nag laa lay wax te ñi du neex a dégg hmm. mais bu nekkoon suba mercredi bi laa la pare nga ma hmm. pare nga nga dégg ñu ne Eumeu Sène wàccal ci kaw laa dëgg yàlla ah. du neex dégg nag li mu lay wax nii. léegi li nga wax nii day dem ba ci làmb ja wala avant làmb ja mun leneen mën naa xew. waaw làmb leneen mën naa xew moom moment bu ñu toll ñi ñii ñii quatre-vingt-dix pour cent Eumeu Sène moo jekku moment bi ñu toll ñii laa wax quatre-vingt-dix pour cent yëpp moo jekku Eumeu Sène Euh, ci leeral am na euh, euh, jàkkaarloo bu amoon ci ñoom ñooñu dinaa ñëw ci Diène Kairé ak Modou Anta noo ko gisee mais ci jàkkaarloo boobu woo nga ma téléphone ne ma am na ci mbër moo xamante ne ci ñoom ñaar diggante Lac de ak Eumeu Sène bu génnee lii sarax kenn mënul téye mu gañ a nàmb ji loolu yaa ngi koy gëm ba tey. waaw maa ngi koy gëm ba tey <laughs> maa ngi koy gëm ba tey de waaw lamb yooyu dèjà foofu rek boo xoolee seen jàkkaroo boobu rek wane na seen jàkkaarloo boobu rek mooy ne ki am ndam leer na foofu ku am baatin dëgg boo xoolee rek di nga xam ndam am na foofu ba pare li si nag yàlla suñu borom moo ko yor moo xam ne képp daal kuy utiliser lu weex. te dafa am lu ma jaaxal parce que seetaan naa dem seen benn interview ñoom ñaar Lac de lu weex la sol. Hmm. waaw. Eumeu Sène ak Lac de bu leen kii invité Malick Thiandoum. Hmm. lu weex la Lac de sol. te am na loolu nekkoon si début ne la weex koo ci jiital yaay moom làmb ji saison 2021 saison la xibisee bët du xol ñu si am ndam ak weex dina bari torop ñu ñëw ci Modou Anta ak ki nga xamante ne mooy Diène Kaïré combat la boo xamante ni ñaari xale lañ kii ma nga dëkk Thiès kii ma nga dëkk euh, Soumbédioune ñoom ñaar ñu war laale combat boobu loo ci gis waaw Modou avril ba tay Modou Anta Diengere. ay ñaari xale lañ yu nekk ci seen yoon di dem. mais li ma si gis man laa wax ma si gis gis naa deftu Modou Anta. Hmm. waaw defta message bi bii moom ñoom ñaari gëm naa Diengere daan ko de. <laughs> sëñ Mor yaa ngi jël engagement boo xamante xale yi moom ci guddi gi lañuy ñuy dem vaar indi sa kii dugal la TikTok kon pare nga pour dem di nga dem TikTok de. loolu am problème man Baye Djily. Hmm. kuy xaar pour ma vaar ah, di nga xam de comme li ma waxoon ndax man lépp lu ma wax dina ko assumer te lépp lu ma wax mën na laa indil firnde ndax ñun làmmatuwuñ ñuy gis gis gis bu wér donc bis boobu ñëwee boo ñu woowaatee ñu la lii la ak lii ak lii ak lii xam ñu ma la mais man du ma sëriñ soom te dañuy làmbatu. koso mooy la non c'est-à-dire man lépp lu may dugg si dem ba mu jeex tàkk gëm-gëm boobu laa am ku mu ànd li àdduna yëpp dina xam ne man diw laa àndal te ragal picc day xam ne wërsëg. dëgg la am na solo ñu ñëw ci diggante euh, Garga 2 Mama Lamine combat la boo xamante ne suñuy naataangoo ñoo ko tëgg waa Equivox euh, ñu leen di nuyu bu baax di nuyu suñu confrère Babacar mi nga xamante ni mu nga fa euh, combat boobu noo ko gisee. combat boobu dañuy combat bu neex la combat jeune la combat espoir la mais gisuma ko.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 Siteu dina daan Papa Sow te naa jeexal dóor mu daan te combat boobu yàlla ba amul. Mm-hmm. yàlla seet yàlla bul sutura ba combat boobu amul mais kon dinañ gis lu doy waar ba fii may waxee yow Siteu moo tee ndam li mm. waaw. xam fii may waxee Siteu moo tee ndam li de waaw Siteu moo mm. amul amul benn changement. coow li amoon ci réew mi euh, xam naa ni foofu la ñuy mujjee ñuy ñaan yàlla suñu boroom yàlla na fi yam euh, Modou Lo Ama Balde. waaw bu ma si wax sax coow day bari <laughs> donc waa Pikine dañ ndax man yàlla moo def fépp dama fa am ay nit. ñu hmm. ne ma suñu nit ngay bul wax si combat bul wax si. mais des nga seetaan dégg nit wax loo xam te ni sa xol day jug. Hmm. man rek lu ma fu ma jëm teg lu ma piite Modou Lo ba mu koy faral du tey ñu jóge Modou Lo di samay xarit fam papis kon tey Modou buy bëre may si xiini wala xaana man naa feex laa te yàlla tamit am fi mu def si mulo Lo muy fulla fayda jom fit ak yar àdduna gépp taxaw nag ne am Baldé dina daan Modou mais bàyyi ji loolu du am. yow si ñoom fu ko teg mystique ñoom li ñu jàpp ne mooy daal molo Lo mooy galaaj ñun bu nu xoolee ba ñuy téye Modou Lo si galaaj ñoo xam ne duñu ay bu dee galaaj képp dong la Ama Baldé yaakaar bu dara Modou Lo du ko daan ak ku ànd ak moom nag laa wax su dee galaaj kase kase kase la yaakaar si ko pour daan Modou du ko daan. combat boobu kon nu muy mujj ci dóor mu daanu bëre wala nu muy mujj. bàyyi lu gën a wér mooy Modou Lo pareegul perte roi des arènes lu gën a wér laa la wax. Hmm. pareeguñ sax pour jox roi des arènes bi ko jëlee yàggul mu jëlee roi bi yàggul su ma jugul deux mille wala deux mille lañ ko jël. mbër jël na ko ci at bi at bi ci topp mu ñàkk ko. waaw ah, ñu nag mbër yooyu duñ benn. mu mbooloo topp si ginnaawam ak bu jugee parce que lu mu jugee du yoon muy jël combat am si ndam muy roi des di bëri jiwaat combat royal di ko perte jaafa ko ba ñu ko joxee drapeau li si am muy xare ji dafa téye bi di xeex di xeex ban dagg benn loxo bi mu téye drapeau bi benn loxo bi di xeex di xeex di xeex ban dagg benn loxo bi mu téye ko fii si pooj yi drapeau bi daanuwul. Modou Lo drapeau Parcelles Assainies la yëkkati 1 ba mm-hmm. de bu soobee yàlla Amadou may nuyu bu baax a baax a baax waa Leewtoo production euh, ñoom ñi nga xamante ni euh, ci njiital ba Pape calis moo tëgg combat boobu dox ci diggante tafaatin ak Boy Niang may nuyu mbay Babacar bu baax ak soxna Ndeye Mbacke euh, combat boobu noo ko gisee. waaw combat bu neex la combat bu rus la ku xam Boy bu jógee ngéwél gi lépp jóg hmm. bu jugee Pikine jug ku xam Tapha Tine xam ne bu jógee boole gépp jóg Tapha Tine juge si victoire Boy Niang juge si défaite. Hmm. mais fi ñu toll nii nii nii nii nii ah gëm naan Pikine dinañ. Boy Niang ci victoire la jugee ci victoire la jugee. ah la de Guiers ko daan. de Guiers moo ko daan. waaw hmm. ko daan mais Boy Niang am naa ñott bu rafet dina am tam ci kaw Tapha hmm. ah. la wala loo gis la. man moom loo wax dama naa la loo gis parce que xam naa ne bu dee analyse euh, sama papa euh, ku ci mel ne Pierre Maxime Bargane euh, sama Pierre Birahim Ndiaye ñeneen ñooñu doy nañ ma ci analyse làmb yow boo nee jàpp naa ni. day mel ni da ngay analyser damaa bëgg nga wax ma li nga xamante ni moom lu mbëri di dund muy baat. bu ndaw bu ndaw. pour booy ñaar am ndam si kaw Tapha Tine. sarax bu ndaw bu tuuti rek moom ndam. sarax boobu yow da nga koo xam. waaw. bu ko defee force day daal. fala bu da ndam bu tuuti la nag madul sax six suñ ko calculé lépp matul 6000 francs moom ndam ñoom Ama Baldé sax bi ñuy wër contre Modou Lo. Hmm. cent 1200. Boy Niang 6000 Ama Baldé 1200. waaw ah. ñoom sarax bi leen ci yéen a raw ak ñaan katu Ama Baldé sarax boobu matul 1200. dunoo hmm. bëri mbokk de <laughs> waa parcelle. <laughs> bëri mbokk de pour daanu pareeguñu pour joxe roi day neexat Modou Lô Balla fois pourquoi pas. Modou Lô Balla fu mu day am dam jeex na moom laa la bëggoon laaj bala Gaye Bombardier nga ni. fu mu jëm day am dam Balla Gaye. Hmm. waaw. yow sëriñ si ñu bari ne Bombardier jekku nga ne Balla day am ndam. Balla Gaye dina daan Bombardier jël bu ñax xorom da koy daan. Hmm. jël bu ñax xorom da koy daan. ko na ba pare fekk ñu defal Balla bagage coow li bari après ñu xool fu ñu jëm. Hmm. <laughs> yomb na trop waaye sëriñ Mor. Euh, xam naa ni dama lay jaajëfal bu baax a baax a baax en tout cas li mën a xew mooy supporteru Balla Gaye yi supporteru Modou Lo yi supporteru Ama Baldé yi buñ naan vaar ñoom ñoo tax ndax lépp loo wax danañ ko jël coppet ko denc seen 30 secondes yóbbu la TikTok jàllale la sinap dugal la euh, WhatsApp àdduna bépp dañ la gis kon baax na euh, ma lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité. lamb day neexat Modou Lo Balla Gaye troisième fois pourquoi pas. waaw mën fu mu day am ndam. jeex na moom laa la bëggoon laaj Balla Gaye Bombardier nga ni. fu mu jëm day am ndam Balla Gaye. Hmm. waaw. bari ne Bombardier am ndam. Balla Gaye dina daan Bombardier jël bu ñax xorom. da koy daan. Hmm. jël bu ñàkk xorom da koy daan. ko daane na ba pare fekk ñu defal ah, ball bagage coow li bari après ñu fu ñu jëm. Hmm. <laughs> yomb na trop waaye Serigne Mor euh, xam naa ni dama lay jaajëfal bu baax a baax a baax en tout cas lu mën a xew mooy supporteru Balla Gaye yi supporteru Modou Lo yi bu ñu naan ñoom ñoo tax. ndax lépp loo wax danañ ko jël coppet ko denc seen 30 secondes yóbbu la TikTok jàllale la Snap dugal la euh, WhatsApp àdduna bépp dañ la gis kon baax na euh, ma lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité. bàyyil yàlla yàlla si réew mi jàmm yàlla yàlla def si réew baax yàlla sàmm ñu yàlla sàmm njaboot yàlla musal ñu defuñ sutura àdduna ak sutura alaaxira si barke Muhammad jërëjëf mbokk yi euh, dégg ngeen ki nga xamante ni mooy sëñ Mor Niang euh, kàddu yi mu jot a rotal mu nekk kàddu yoo xamante ni euh, kàddu citoyen la avant muy doon kàddu kilifa wala kàddu sëriñ mu nekk citoyen boo xamante ni saa su dañ naan bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk te it saa su ne yéen a ngi gis sëriñ si bu ñu génnee façon waxin bi nga xamante ni ñu ngi koy wax ak comportement bi ñuy am ci askan wi muy wane ni ñoom ñëpp. kenn yittewul leen ku dul askan wi ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla suñu borom gën a guddal fanam ba bépp naal bi nga xamante ne am na ko ci réew mi ak ci kilifa diine yi ak doom yu rafet yi nga xam ne mu ngi koy rotal yàlla suñu borom defal ko ci gudd fan ak wér bu baax a baax a baax mbokk yi ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah. Euh, ci ci ci beneen xew-xew waaye du ma fàtte di souhaiter sama doom ji euh, joyeux anniversaire lamin Lamine Ndiol Lamine Ndiol euh, doomu xaasum Cissé borom Turquie borom Istanbul doomi maam Jaara Buso sama doom doomu waa Cool Boy ñu koy ñaanal gudd fan ak wér yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér ba mu fekkee njëriñu njaboot gi ñëpp mu yóbbu ndeyam màkk yóbbu bàyyi màkk yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def jërëjëf ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf